asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñuy suivre ci sunu chaîne YouTube ñoo ngi leen di siyaare kenn ku nekk turam ak santam di tàmbalee ci yaa ayyatuha nafsu mutmainatu irjihi ila rabbika raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati bi tàmbale it ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'una gannaaw ba ñu leen nuyoo noonu ñoo ngi amaat mbégte jàkkaarloog yéen fas yéene am lu nu waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy siiwal ci seen YouTube bi nga xam ne ci lañ adhéré wu muy Guèye historien islamique ak compte Facebook bi ñu wax Guèye Bassin ak Guèye historien islamique xam ne ñi ñu xam ñépp ci lañ ko xam ñu ñu def nag saa su dara xewee ñu yëkkati ci suñ kàddu beral ko fésal ci suñ yéene tey nag ni ko wolof di waxee nu am naqar ak tiis wàccati ci kaw lislaam boo xam ne duñ ne guléet waaye ci jëmm ju baax joo xam ne ñépp xam nañ taxawaayam ci àddina mu taxawoon ci ay alxuraan bi mu naan wattaqi fii ma ateeka allahu daaral axirata wala tansa nasibaka mina dunya muy ki nga xam ne bàyyi woon na xel àddina bi mu nekk waaye mi ngi doon sóoraale alaaxira muy ki nga xam ne moom la wax Mouhamadou Lamine Niass ñu koy wax Sidi Lamine dëkkoon Kaolack nekkoon ku am taxawaay bu rafet bu rafet lu ne nii la nit war a mel xol bu rafet boole ko xam-xam di servir diine ji di ko sowee ci lu ne di servir réew mi di ko sowee ci lu nekk ubbi organe de presse tàmbalee ko ci ab journal muy Walfu Quotidien mu dem ba ubbi rajo muy Walfadjri ma 99 point 0 ak njàmbaaram may ko muy continuer ba ubbi Walf TV Sidi Lamine Niass di dox ca loola di servir diine di servir àddina journaliste yu baree baree baree bare ak organe de presse boo mën a ubbi ci senegal ak lu ko nit ñi jël jël jël jël jël biisu Walfadjri nga mu sowe nit ñi ci ñu bari dugal loxoom ci koom-koomu réew mi bu bari ressource réew mi mu dugal ci loxoom liggéeyloo ay nit ñu mën a taxawu seen famille mën a sàmm seen ngor mën a sàmm seen diine sii Sidi Lamine mësul bàyyi benn toll mu boy mësul bàyyi diine ji mu boy mësul bàyyi addina mu boy mësul farfarloo ci diggante parti au pouvoir et ak parti opposant mës ta farfarloo ci kilifa diine ak kilifa aada Sidi Lamine ñas lépp lu mas a xew muy actualité la cay dëgg loola lay tànn te moom lay teggi faar boole ko di ko wax nag ci méthode wax bu am solo boo xam ne nii kii dégg dana dégg bañ ba wut ab émission boo xam ne diine ak jamono la ko tudde amul benn organe de presse bu nekk ci biir Sénégal te tey ay employé am nekk fa ñoo xam ne fii moo leen formé moo tax tey tiis wàcc na ci diine ji waaye wàcc na ci Sénégal waaye wàcc na ci presse bi bari na sax ñu ubbi ay organe de presse ñoo xam ne presse du seen domaine waaye bëgg guñ bëgg Sidy ak roy guñ koy roy moo tax ñu dem ubbi ko te ba ñu ko ubbee yéen yemuñu ci ay emploi yi Walfadjri lañ dem jël dugal fa ragalul buur ragalul baadoola yàlla képp la mas a ragal moo tax lim daan taxaw di ko wax menn jëmmam moo koy wax te jaral na ko lu ne jaral na ko kaso jaral na ko lu nekk ba yàlla indi tey ab dogalam ndax dund gu nekk am na ab yamukaay kon yal na ko yàlla defal fam mu jëm gënal ko fi mu jóge ñu di ko jaale ummal islam bépp di ko jaale xalifab Medina Baye di ko jaale xalifab Touba sëñ Muntaxa di ko jaale xalifab Tiwaawan sëñ Babacar Si Mansour ak waa ba ak waa Léona Niassène ak mboolem ummal islam bi ñu ngi leen di jaale si di dëmu ñas amul kenn ku yëngu ci diine di jaar ci presse te Sidy Lamine amoo foo jaar ak moom tey nii ma ko témoigné kenn ku nekk mën nga koo def témoignage noonu man maa ngi ko mujj a gis 2004 ci benn dëkk bu ñuy wax Lecce mu ñëw fa jamono yu Wospace bi mu dikkee fekk naa ko fa mu nekk mu nuyu ko mu woyof tooy ñu waxtaan muy ku baax ku am yërmande ku am jàmm ku bëgg diine ku bëggum réewam bokk ci xeetu Seydina Muhammad bokk ci sëtu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon tey benn ponk wala jet benn jàmbaar si ñi nga xam ne ñooy jàmbaari lislaam yi mën naa ne daana na tey waaye nag keroog ba yonent bi taxawee na al yawma akmaltu lakum diinakum anam après lu ca topp ñu xëy xëy ne yonent bi sallallahu alayhi wa génn àddina Omar jël jeesi ji ne képp koo xam ne nee nga ma Muhammad génn na àddina ma tàggale sa baat ak sa bakkan ñenn ñi lafañ ñenn ñi jaxasoo Ababakar wax leen ne ku doon jaamu yàlla yàllaa ngi fi képp ku doon jaamu Muhammad Muhammad a ngi fi kenn ku nekk biir si lislaam di dox ba nëgëni bis boobee ku koy fàttaliku benn bis du turee ci yow dee bayu fi buur bayu fi baadoola bayu fi ku baax bayu fi say-say fu ko yàlla yebal dana fa dugg waaye kenn ku nekk war ngaa fexe ba àddina bii nga nekk nga bàyyi fi loo xamee ne que ni dees na la ko mën a fàttali ko ndax témoignage yi ñuy témoigné te muy dëgg ci moom fa mu tëdd tey def dana ko servir te loolu jëf rek ko mën a maye waaye ay wax du ko maye. nañ am ngor xam yàlla jéem a dem jàmm ji yàlla poñ poñetum addina mii saytaaneel ci laxasu te fexe ba fa mu jëm ëllëg mu yóbbaale fa ñi nga xam ne dañuy wuyoo ay jullit loola doo nga ko tax a jóg alal wër tax ngay jaay sa ngor. alal wërta tax nga jaay sa diine alal wërta tax nga noonu ak say dëkkandoo alal wërta tax nga tàggoog say waajur ndax yàgg yàgg fii ngay mujj maam Abdou Aziz baax keroog bi ñuy denc Lamine Gueye wax na ko wax joo xam ne ba fi mu ne wax ji doxee bi te mooy dëgg ndax dëgg mooy li nga xam ne mooy la yàlla naan alxaqu min rabbikum bi ñu tëralee Lamine Gueye la ne ay na diw ay na diw ay na diw ñooñu yoroon ay ndombal tànk daan ne ñooñu ñëpp dem nañ te buur yàlla jëlee na leen fi tey nag kii nga xam ne mooy Lamine Gueye mu ngi nii tëdd kenn du dutu jël audience ci moom ki ko bëgg a gis dana ko gis tey amatul garde corps amatul audience bu ñuy jël ci moom amatul climatiseur bu muy taal amatul oto bu muy war amatul ay soxna yu muy dëkkaloo alalam jëpp jeex na yàlla tàggale na ko alal ji jox ko ay bokkam ne ko séddoo leen ko te sant ma ci bu leen ko sant kon dara saxul ci àddina maam Abdou ne leen gis ngeen tey dara mënu koo jariñ ci yooye mu do pouvoir yam yoroon li ko mën a jariñ tey mooy ay jëfam te am ci moom yaakaar dong lañ def kon yow ngaa toog yàlla dimbali la lu mel ni jaar ci sa kanam te mënta def ci yow benn effet ngay continuer say ñaawteef kon xamal ne yàlla dimbali na la teg na la ci yoon da nga nangu te tegu te bis bu dogal bi agsee la sëñ Tuubaa waxoon dana ñëw war xabal asiya ali amwaati raddu ila dunya maal xayaati loolu mooy càkkutee fa ka dugg ci bàmmeel la mu fay daj sëñ Tuubaa nee na bokk ko ne pëkk-pëkk ba mu jóg nga laaj ko loo gën a bëgg danaan la dellu àddina waaye sëñ Tuubaa nee na day tëdd ticc loo fi wut mu ne damay fexe ba jëf loo xam ne si yàlla daf ma ko digaloon te defuma ko duutu am foofa liggéey amatu fa jaamu yàlla amatu fa faye fa am kon bala ñu caa dem nañ teel a waajal suñu bopp fii alali addina ji amul njariñ ku jël sa àllaaxira jënde ko sa addina fa sa yendam la tastari dunya bi uxraa yaa fata man baaxa nuuran biddu jaafa sa yëndum addina képp la ñuy xëccoo te sëñ mu nee na addina du dara liñ ci bëgg muy alal ak ay oto ba mu teenoo jaamu yàlla nee na loolu moo gën a yomb ci addina kon loolu jërul wàcc sa diine jërul jaay sa ngor jërul wax loo wër te wax jërul sàggane diine jërul suufeel alxuraan jërul def dara te xam ne kullu nafsin saa yi xatil mawti bakkan bu mos dund dana mos dee nit ki ni muy xëyee ci toolub addinaam di ci bay na góor góorlu ci toolub àllaaxiram ba jéem ca kem kattanam ndax tool ba bañ a booy waaye addina rek xëccoo ay nguur xëccoo ay alal ku mën a rey nit rey ko ku mën a toraxal nit toraxal ko ku mën a nax nit nax ko ku mën a boom nit nit ko def ko ko ku mën a nax nit nax ko lu ñaaw lu nekk ñu jël ko teg te dara war la ko dul àddina bis dana ñëw fa sa yend ma bis bu lii amee da nga ndax Sidy Lamine Niass mii fi nekk tey de mboolem lu mu yilifoon te yilifatu ci dara yàlla jël na ko ci loxoom teg na ko ci leneen la koy mën a jariñ tey mooy la nga xam ne moom la fi doon jëf ci lu baax ji di ko ko fàttali ko te yàlla na ca dajale ngërëmal yàlla ab avocat faatu na fi bu yëgul avocat boobee da daan taxaw ci digg tribunal di layal ay nit yuy def ay ñaawtiif yàlla jëlee na ko fi bu dana daje koo xam ne tey alaysa allahu bi ahkamil hakimin attekat bi nga xam ne dara da ko absenté dana atte lu nëbbu atte lu feeñ atte lu ruqe loo xamee ne nii cunkur gi gën a sew ci deru tàndar na sax dana ko bu boobaa bu fekkee nga doon jëf-jëf ju baax da nga am da nga da nga siggi tey ana avocat yi nga xam ne tey ñu ngi toog ci buntu tribunal yi di wut luñ yóbbu seen kër rëgaluñ yàlla rëgaluñ yonent bi dañuy fekk ak dëgg ñu jël ko teg aw fen ca kaw jël aw fen di ko cuub ba mu lu dëgg ngir bëgg luñ dunde bis dana ñëw lii dal Sidi Lamine Niass dana leen dal te loolu la Sidi Lamine Niass daan dénoncé toog di ko wax fekk injustice wala insécurité mu taxaw di ci di di di ci wax président de la république parti au poste ak ministre ak ministère de l' intérieur procureur ministère de la justice comme ci mën a doon bis dana ñëw danañ la tëral ci jàkko ku la bëgg a gis dana la gis ku la bañ a gis dana la gis te bu boobaa benn at rek ngay ngay jàkkaar lu muy siis bi li ma la dénkoon nan nga ko doon defee bu boobaa dara du doon sa avocat lu dul say jëf ñu taxaw fi naan 2019 2019 diw la ñuy investir diw la ñuy fal ñee ànd nañoo ñoom ñi jël ay alal ak nit di séddale nit ñi di lekk di dugg dugg ci ay riba fàttee jàmm yàlla bàyyi lépp teg ko ci suuf bis bii dina ñëw te 2019 ñu ngi koy wax waaye am na ci ñoom duñ ko fekkee Sidy Lamine Niass mi bi muy toog di def ay débat di servir réew mi ku ne ko woon doo fekkee 2019 dana ko bett te am na ci ñoo xam ne ñoo ciy topp na kenn ku ne sa bopp nag na man man mi maa ciy topp bu kenn jàpp ne da ngay dëkk dëkk ci àddina lépp di la fi fekk am na loolu da nga ciy fekk jóge fi mu xew sa gannaaw am na ci loolu ba nga ñëwagul it la daan xew sa kanam ba nga ñëw fekk ci biir su néew nga jóge fi loola da kémtu di dem sa gannaaw te na ci ñuy naan 2019 mu jaral leen faat waxtu julli jaral leen rey seen morom jaral leen lor seen morom te 2019 duñ fekk te lañ jot jëf mën na fekk ci biir bàmmeel te kenn mënu leen a layal ba yàlla du leen toroxal bu ëllëgee yàlla faaliwul président yàlla faaliwul ministère de l' intérieur yàlla faaliwul lacrymogène yàlla faaliwul dara dat bi mu wax ne da fi jóge bis bu ñëwee yàgg moom képp ak say jëf bu boobaa nag lu waaye di jaay dana lamb bu boobaa it dil si àddina rek mooy sa càkkutéef waaye duutu mën a nekk kon nañ dellu ci bu gaaw àddina jërul di jënd àllaaxira na jërul di jënd àllaaxira ku ko ci def da nga fa sa yem da nga am lu la naqari lool ci sa bopp bu ëllëgee ndax bàmmeel ba xat na lool te armele sori na dëkk ba lool nañ sax ci jub jaamu ji yàlla alal jii dañ ko fi bàyyi te alal jii lu mu bari bari bari bari bari mënoo cee weesu tëdd benn néeg mënoo cee weesu tëdd benn lal mënoo cee weesu lekk ba suur te boo xasee nelaw lay xew sa gannaaw doo ci xam dara ci ay nelaw kat waxuma la dee kon nañu bàyyi xel suñu borom xam na wa maa xalaqtul jinna yax insa du li yaxbuduni wa maa umiru illa li yaxbudu ne ci alali addina ji rek defe ne addina ni ni mu jagee ni la àllaaxira di jag te gis nga nasaraan sii képp ku bokk ak ñoom seen tedd gi ji ba léegi seen toroxtaange ji la nga bokk ak ñoom kon nañ wan addina gannaaw te dem tuubal yàlla jaamu ji yàlla yaan yàlla may mujj gu rafet waaye nekk ci lu ñaaw te yaakaar ci mujj gu rafet sëñ Tuubaa nee na loolu mooy topp sa njort daana wax ne topp sa njortu ak rafet njort dañoo nuroo te bokkuñu rafet njort mooy nekkal ci jub di def la nga war a def di wax la nga war a wax lii la yàlla sant nga di ko def bis boo faatoo nga rafet njort ci ne yàlla mën na laa tàbbal àjjana topp sa njort nag mooy def lu la neex wax lu la neex te yaakaar ak jéggal ëllëg loolu mooy topp sa njort kooku ji def bu ëllëgee suñu borom dana la toroxal da ngeen gis nit di nekk ci safaan bi ci yëngu ba xëy wàccub liggéey amul dara luñ ko rendre hommage lu dul taxaw di ko fàttali ko ci loola jàpp ne nag loola mën na koo jëriñ ci bàmmeel ba dara te bu sañoon du du tugg tuddoon te yow mi nga xam ne ci yow yow ngeen ngeen àndaloon yaa nga continuer yaa nekkat ci loola jël addina rek defe na da nga fiy sax dàq di wuti xërëm ak lenn lu ne nga di ko def mu li la gën a yóbbu ci sirk ak di la yóbbu la ci jaamu xërëm ak di la yóbbu ci leneen ba nga jël yàlla fàtte ko teg ko ne leen bu ëllëgee bis gën a ñëw buñ la tëralee ci jàkk génnee la kër ga taqale sa alal ak sa jëmm taqale sa njaboot ak sa jëmm lépp bu nekkat yeneen loxo bu boobaa la la mën a jariñ ci biir bàmmeel ba mooy jëf ja nga jëfoon te bu boobaa it kenn ku la ca mënal dara amul àddina jërul jënd alaxira ndax as ndiir nañ fiy def te dañ fi jóge nit ku ne nag yàlla jëlee na ko fi jëlee na fi xalifa général gannaaw bu mu fi jëlee yonent bi jëlee na fi sëñ Tuubaa jëlee fi Alaaji Maalik jëlee fi seeni waajur jëlee fi seenu njaboot ba fi mu ne yàlla ngi continuer di leen fi jëlee loolu nag war naa def xel ci kii nekk ci addina xam ne xam-xamam ak bari pexem bayiwu ko fi kee ak ñàkk faydaam ak néew dooleem jëlewu ko fi comme Sidy Lamine mii fi jógee nag fi mu ne nii ci instant bi war nañoo xam ne lu waaye di yëngu lu nekk war nga cee bàyyi xel suñu borom te xam ne bis boo bayiwul xel suñu borom suñu borom dina la bàyyi xel bis boo xam ne fii bu dikkee da am lu la naqari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu